bokk yi kàddu sëriñ bi nga xam ne moom la doon jot jottaliloo Cheikh Mouhamadul Bachir tam digal ñu nu jottali ko ma tënk ko ci wolof mu ngi nuyu ñëpp moom Cheikh Mouhamadul Bachir di ci jiital kilifay lislaam bi te ñépp ñëw di nuyu jëwriñ ji nga xam ne moo toog ci wetam moo di mosieur Antoine Abdoulaye Diome mi yore mbir biir réew mi te mu ànd ak mbooloo mu takku mi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu nga xam dañ fay teewal ay parti politique ak fu ñu mën a bokk di ñi nga xam ne dañuy jaambur yoo xam ne defuñu politique waaye lu suqale Sénégal rek moo leen ñor Serigne Bassirou nee ngi bëgg lool di leen leeral ne moom ak taalibe bi murit yépp maase nañ gërëm leen sant leen ci bokk gi ngeen bokk ak nun xew-xew bi loolu day wane ne xam ngeen ne li nu bokk du lu ñuy seddoo lislaam de su ko séddoo Sénégal de su ko séddoo yéen kilifa diine yi sëriñ Basiru nee na sëriñ bi nee na mu ngi sant ci coono yi ngeen toggoo ngir ñëw Tuubaa lu ngeen ëmb ci seen xol mu jëm ci Tuubaa sëriñ bi xam na ko lu Tuubaa mos a xewle ngeen teew seeni waajur nag ak seeni maam noonu lañu meloon dañoo soppante wante yàlla rek a tax jàppante wante yàlla rek a tax yow jawriñ ci monsieur Antoine Abdoulaye Diome sëriñ Basiiru nee na sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu yaa ñi nga àndal di ñaan nga jot li nuyoom ak cantam ak ngërëmam ki yàlla teg ci bopp réew mi muy monsieur Macky Sall ak mbooleem gouvernement bu senegaal ndax ñoom kat jàpp nañ ci bis bi nañ ko daan defe ndax xam nañ bis bi seen bis la ba tax na bis bi mel na na mu daan mel wala mu raw na mu daan mel ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo man moo sañ moo am yàlla na yàlla wommat leen lépp lu ngeen mébét ngir liggéeyal ko askan wi ak réew mi suñu borom may leen tawfiq bi nga ba koo sottal yéen mbokk yi nga xam ne ay parti politique ngeen fi teewal ak fu ngeen mën a bokk ak jaamur yi defal politique sëriñ bi nee na sant na leen ci seenu teewaay xam na ne fu màggal jotee dootu loon am jàmm fiig ceewu leen Tuubaa mi ngi ñaan yàlla yàlla may leen tawfiq ba li ngeen yéene ci Sénégal muy yëkkati ko ca kaw ba ñépp seen ko yàlla defal leen ci ndam sëriñ Bachirou nee na yéen taskati xibaar yi moo xam tasukaayu xabaar yi nga xam ne dañ koy jàng ak yi nga xam ne dañ koy déglu ak yi ñuy xool ak site internet internet yëpp nee na mi ngi leen di sant ci taxaw bi ngeen taxaw ngir jàpp jottali màggal gi yaatal ko ba ñëpp jot ci nee na mi ngi leen di ñaanal mi ngi leen di gërëm képp koo xam ne daal def nga sa loxo ci màggal gi ak noo ko ci mën a defe nee na mi ngi lay gërëm mi ngi lay sant ci turu sëriñ bi bu loolu jàllee sëriñ Bachir nee na élection élection yi mi ngi ñëw jege na lool te ku ne xam na ne Sénégalais yi élection yi da leen a ñor li muy ñaan nag mooy buñ ca àggee rëkk lépp nañ ko def ci jàmm ak salaam mu doon élection yu leer nañ élection élection yu civilisé élection yu dal élection yoo xam ne bu jàllee ña doon xëccoo dëmb ak barki dëmb bu ñu gisee dañuy saafonte tàppante ay pasu kaf ree kenn ku nekk mën a siggi xool sa moroom ndax mu soo ko wax lu ñaaw wala nga def ko lu ñaaw ndax dañuy xam ne yàlla mooy joxe yàlla mooy xañe sëriñ Bassirou nee na sëriñ bi nee na mu gërëm waa nguur gi rawatina ministère de la santé ci seen taxawaay bi ñu taxaw ci jàngoro ji bi mu tasaaroo ci réew mi jàngoro ji bi mu tasaaroo ci biir réew mi te muy jàngoro joo xam ne jaaxal na àdduna réew yi nga xam ne dañoo man seen bopp sax jaaxal na leen waaye sëñ Bas nee na sëñ Muntaxa nee na moom xam na ne corona jaamub yàlla la yàllaa ko sàkk yàllaa ko yabal yàlla nee na uma yaalamu junuda rabbika illaa hu nee na nag lislaam dafa am lu ñu jàngaloon mooy soo demee ba jaaxle ba jàq ba xamatoo foo jëm dangay ngay dellu ci yàlla moo tax bi ndox mi taxawee mu tooy taw corona bi yokk sëriñ Muntaxa dafa woote ne na ñépp dajaloo dëkk yàlla seeni lox toroxlu ci kanam yàlla tuubal ko sàkk sarax ñaan ko ñu jàng ay junni junni kaamil al quraanul karim jàng ay junni junni ci xasir Cheikh Ahmad xasida yooyu nga xam ne dafa dafa barkeel te fees dell ci tudd yàlla sant yàlla sabal yàlla bàkk yàlla màggal yàlla jéggalu yàlla ñaan yàlla tawassul ci alxabibul mustafa sallallahu alayhi ñaan ci barkeem ba ñu ko defee day ñëpp xam nañ ne ndox mi wàcc na corona bi wàcc na nee teewul nag médecin yi li ñu santaane muy sàmmonteeg liy joxe wér-gu-yaram teewul dañ koo jëfe dañ ko santaane ndax ñoom la ñuy santaane dafa dëppook la lislaam di santaane wala tulqu bi aydikum ila tahluka yàlla moo ne bu leen xaru te am na loo xam ne soo ko defee dangay ngay xaru mbokk yi sëñ Bachiru sëriñ bi nee na mi ngi massawu ñi nga xam ne bi ndox mi wàccee dañoo génn seeni kër ànd ak tuumuranke ak jaaxle waaye bi mu amee sëriñ bi nee na xam na ne gouvernement bi def na ci la mu man ma nga cee góor góorlu waaye nag fas lu mu daw daw dañ koy làbbali mu ngi digal gouvernement di leen ñaan lu ñu def ci effort ak coono nañ ko yokk li muy ñaan daal mooy mbënn ñu dem ba nga xam ne dañ koy weesu ba nawet bu jotatee kenn du génn sa kër waaye nee na nag ndox mi li muy bari bari bari ak li muy yàq-yàq nañu xam ne nag taw moo gën bekkoor ndax bekkoor moom day faagaagal koom-koom day tas am réew day tukkal adduna te taw moom yërmaande yàlla la yàlla nee na wa huwa alladi yunazzilu lgaysa min baadi ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa alwaliyul hamid sëriñ Bassirou nee na sëriñ bi nee na mbokk yi nu bokk lislaam mu ngi leen di fàttali ne jikko yu rafet yi lislaam santaane nañ ci gën a tënku mooy nañuy jéggale te bañ di fayu nañuy jëllale nañu wàññi coow li lépp lu amul njariñ nañ ci jàpp sunu njaamu yàlla nee na fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah te itam bi nee bokk na ci lislaam ju rafet nit ki day jàpp ak njaamuram nee itam ku gëm ne su ëllëgee loo defoon wala nga wax ko yàlla fay la ko del wax lu rafet sëñ Basiru nee na sëriñ bi nee mu ngi dénk ay doomam ak sëtam ak i sëtam ci réew mi moo di violence nañ ko moytu lépp lu koy waral nañ ko moytu ndax de violence du jur lu dul violence nañu xool ci réew yi ñu wër am na ci réew yoo xam ne ña ngay rayante ña ngay xiiroo ña ngay ŋaayoo ña ngay xeex ña ngay boddi konte ci biiru xeet ña ngay boddi konte ci wàllu politique te yàlla dogal na Sénégal mucc na ci kon nañu sant yàlla ci xéewal gii mu ñu xéewal mooy jàmm ji ñu am waaye nag jàmm dañu koy suuxat jàmm dañu koy sàmm suñ Basiru nee na sëñ bi nee bokk na ci nag lii xañ jàmm jumtukaayu xar la yu bees yi nga xam ne moom la gone yi xewal di ca nekk guddeeg bëccëg ba duñ tal leneen muy sànq seen seen waxtu seenu waxtu di yàq seenum njàng ñuy génn ay photo ak vidéo yoo xam ne ngor da koy bañ diinu da koy bañ di yàq der deri gor nee na ñaata nit yu xaretoo woon di ay kóllëre seen diggante tas na yàqu na te xarala yu bees yi moo ko wal ñaata way dencante seeni sëy tas na te xarala yu bees yi ñoo ko waral ak bokk gu yàqu yàlla da ko bañ te ñaata mbokk moo yàqu te jumtukaayu xarala yu bees yi moo ko waral rawatina am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy suuxat bodde konte ci biiru xeet di ko ci jaarale wala bodde ko ci biir tariqa man nangam laa man nangam laa di ko fa jaarale ak bodde ko ci wàllu politique di ko fa jaarale yéen taalibe yi murid yi sëñ Bachir nee na sëñ sëñ Muntaxa nee na mi ngi dénk boppam di leen dénk nañu gën a si ci njàngaleem Cheikh Ahmad Bamba te njàngaleem Serigne Touba weesuwul lislaam yi kese kese kese jaamu yàlla dong bañ caa boole keneen jàpp ci alquran dong roy ci sunna dong nee na nañu fonk xam-xam bu am njariñ fonk jaamu yàlla fonk ay teggin nañu laxasaayu liggéey ba am lu lew te bu ñu amee lu lew nag ñu koy defaat ci yoonu yàlla na ko mag ña daan defe ku mel ni maam Thierno Ibrahima wala maam Cheikh Ibrahima Fall nañu jéem a nekk royukaay na ko mag ñi nekk woon ci yaatu dënn wormaal keneen ku dul yow bañ a tooñ kenn te ku tooñ nga jéggal ko suñ Basiru nee na nag ku ci liggéey ba am na nga xam ne def ci yoonu yàlla dara gënu ci def ci naal bi Sëriñ Muntaxa naal ndax sëriñ bu mag bi bi muy ñibbi si Touba bàyyi na ñetti naal yoo xam ne sottiwul ci kanamam ni ko sëriñ Mbàkke bu soo wax nettalee te bokk na ca naal yooyee nag muy ab jàngukaay boo xam ne soow jant gépp dañuy laxas di fa jàng kon naal bii sëriñ bi naal ñépp ci jàpp waaye luñ ci jàppoon nañ ko xeeb yentaale bi murid ji sëriñ bi nee na suñ Basiiru nee na sëriñ bi nee na nañu gën a góorgóorlu ci jàngal suñuy doom lu defar seen diine ak lu defar seen adduna yor leen yaru diine boo xam ne dana leen mën a ñett ba xajam-xajam yi ak yàqu-yàqu yi bàyyi ko bitim réew bu ñëwee bàyyi leen fa ndax ndaw ñi kat lii ñu yor soo liggéey ñoom ñoo ko yor nee na balaa kàddu gee daanu nag mënta ñàkk sant cant gum tibb ci xolam ak ñaan gum tibb ci xolam jëmee ko ci bokkam yi mu bokkal Serigne Touba mm-hmm. jàppale nañu ko taxaw nañ ko muñal nañ ko déggal nañu ko kon sëñ Bassirou nee na sëñ Mignane mi ngi ñaanal bokkam yi di ñaanal it njabootu bokki sëriñ Tuubaa ya ndax nañu àndee woon ak sëriñ bi noonu la ñu àndee moom di di sant itam njabootu mag ñi jëkk a ànd sëriñ Tuubaa na seeni maam defoon noonu la def di sant nag nee na taalibe murit yépp góor ak jigéen rawatina fii ci pour dëkk bi am na kuréel yoo xam ne luy sàmm warmay Tuuba ci la ñuy xëy di ca gont am na kuréel yoo xam ne dañuy dajalaatu seet ci dëkk bi loo xam ne war nañ ko faa def te état defu ko ndax état mënul lépp ñoom ñu di ko def am na kuréel yoo xam ne sécurité Touba moo leen tax a jóg ba sax daayira yi nga xam ne dañuy def su guddi ajuma jotee ñu bale li wër jumaa ci ba sax ñi ci koñ ji daayira yi nga xam ne dañuy bale seeni koñ ba du am benn taq-taq nee na kon gërëm na ñëpp bàyyi bàyyi bàyyi euh, gërëm na ñëpp bàyyiwul kenn lii muy tëje nag moom moom du waxi sëriñ Muntaxa waaye waxi sëriñ Basiiru la nee mi ngi toroxlu ci kanam yàlla di ko dëkk ay loxoom di ñaan yàlla yàlla bàyyil nu fi Cheikh Muntaxa nee sax Cheikh Muntaxa bëggut a gis nit ku bëtam xonq walla ko sonn walla ko jaaxle nee na sëñ Cheikh Mountakha Qadir lim liggéey ku ci teg bët xam ne mat naa ñaanal nee na lim naal képp ku ko xam-xam ne mat naa ñaanal kon yàlla na fi yàgg te wér waaw kon nag loolu mooy kàddu yi nga xam ne mooy kàddu Cheikh Mouhamadul Bachir yi mu nangoo ci sëriñ bi joxoon ma ndigal ne ma naa ko jotuli kon nag dama ciy teg rek lim na délégation yi nga xam ne ñoo jóge ci këri diine yi